may jël xanaa ngaa dañu dóor pour lan sañoo loolu baa ma nga expliqué kala kala ñoo nekkoon léegi ba léegi léegi ma ay ca waxal ak gars yi jërë ngeen jëf continue pas d'amnistie <laughs> eh tu dis tu dis que voilà tu es content des Sénégalais waxal lépp li nga war a wax. non émotion moo ko jàpp bon maa ngi sant di gërëm ñëpp dinañ génn waxtaan ak sénégalais yi bu baax a baax. très très prochainement waaw très très prochainement. di ñaanal pros di ñaanal génn ak tous les patriotes. di jaale ñi fi jot a seen bakkan même su fekkee Macky def ko démb ci conseil des ministres donc ñu ngi leen di jaale ñoom ñëpp. Uh-huh. suñu camarade étudiant bu nekk UGB. ça nous a beaucoup frappé aussi donc ñu ngi jaale la communauté étudiantine ñu ngi jaale ñëpp. di leen wax ni incha allah très très prochainement dinañ génn gën a yaatal lu bëri. sa mbokku bon xam naa ne ay jàmbaar lañ parce que ku toog ba heure bii presque neuf mois jàmbaar lañ dina jeex incha allah. Hmm. waaw. d'accord et que les coupables seront traqués jusqu'à leur dernière trousse. à bientôt la victoire. <laughs>